seen mbokkum taalibe Ahmadou Ndiaye Nguerane mooy dellusiwaat rek di fàttalante ak yéen ci weer wu tedd wi ñu nekk di saaru ramadaanil mubaarak di ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp lu mu dëxañ ci weer wi ci aw yiw yàlla na ko sun boroom defal barakati rasulillahi sallallahu alayhi lépp lu ci dooni rëcc-rëcc yu bàyyi ko ci ñun yàlla na ko sun boroom teggil lépp lu ciy jafe-jafe yàlla na ko yàlla jeexal di fàttalante rekk ak bokki jullit yi bokki talibe yi ci nu góor góorlu takk sunu ndigg laxasaayu fas yéene doon jaami yàlla yu nangu ak njaam fas yéene doon ay jullit yu rafetal seenu jullit fas yéene doon ay taalibe yu dëggal seen taalibe suñ diggante ak Cheikhul Khadim fas yéene dara du doon sunu bëgg ludul dul ngërëmal yàlla fas yéene itam lépp loo xamante ni ni noo nga ca di ca yëngu ñu def ko juntukaay boo xamante ni ni daf ni yóbbu ci ngërëmal yàlla yàlla sunu borom defal ak jàppandal wallazina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana yàlla buur bu baax la bu bari yërmaane wax ni boo waaxoo wuti ko mu gàttandu la yàlla na suñu borom gàttandu li sëñ bëgg ci ñun yàlla nañ ko am li nu ci moom it yàlla nañu ko am darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa ñu toll ci fan yu mujj yi ci weeru koor mu am santaane bu nekk ci biir mu war cee fàttalante te mooy azakay muurum koor di loo xamante ni ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko farataal ci atum ñaareel ma ca gàddaay ga te ci at moom it la koor dugg si ci diine ji kon ndigal la loo xamante ni nii ki yàlla yónni ci ñun moo nu ko sant kon dañ koo war a def def gi nag ajuwut ci mesure ak ñàkk mesure jullit ñépp la ko aj ci seen kaw muy warteef mu wax ni itam ni képp ku woor ba woor yi te génne ko sa koor dañ koy aj diggante asamaan ak suuf ñi mu war mooy jullit ñëpp la war kenn ku nekk war nga ko génne kon mu mukallaf mu nekk war na la yaag ñi nga xamante ni nii yaa leen jaboote te seenub dund war la suñ ko mënalee seen bopp nga fàttali leen ko buñ ko mënalul seen bopp nga génneel leen ko kon boroom kër bu ne yaa ko war a génne génneel ko say soxna génneel ko say doom génneel ko surga yi nga yor ci sa biir kër te seen dund war leen sa ñaari waajur yi suñ ko mënalee seen bopp fa lilahi suñ demee ba tële ga dikkit yow mi warloo seenub dund yaa leen ko war a génneel nu war koo génne itam laata jullik fajar di jot ndax daa wara jiitu dem ci seeni boroom ndax daam yitte yu ca aju yoo xamante ni dañ ko war a def laatu ñuy julli yonte bi sallallahu wax ni suñu jullijee ba ñëw nag ab sarax la waaye dootul asakay muurum koor jamono yim koy génne itam képp koo xamante ni ni yoroo ko waaye wóor nañ la boo lebee da mën a fay da ngay lebi dem joxe ko bu la wóoree ni boo lebee doo am loo faye nag la yukallifu nafsan illa wusaha sun borom tegul kenn lu mënut waaye daal ëpp na yàccaarlu te teg ko ci bakkan wala ñàkk a jéem dara nu muy toll itam mooy boroom xam-xam yi wax nañ ni ñeenti muddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ñaari loxoom yu mu boole tibb ko ba mu fees ba muy ñeenti yoon ci nattukaay yi mag ñi daan yor saax lañ ko daan wax yooyu itam boroom xam-xam yi def nañ ci ay góor góorlu waaye taxagul nag ñu tënk ci loo xamante ne ni ñëpp ñëpp jullit ñi wéy nañ ca loolu nag moog diine ñoo ànd ndax ñenn ñoo wax ni kilo ak liibar ak kenn waaye liibar ñenn ñi ni ñaari kilo ñenn ñi wax ni ñaari kilo ak liibar ñooñ ñëppit lañuy ñuy dàkk rek mooy matuk yëf ya ndax ñi wax ñaari kilo ak liibar dañ ne moom ala kulli xaalin boo ko defee moom day mat waaye dootu ko yées ñuy wax kilo ak liibar ak gën waa liibar dañ ni mat na ko ñuy wax ñaari kilo itam dañ ni mat na ko ci li ñu koy génne itam mooy li ëpp ci li waa réew mi di dunde dundub réew mi te moom li ci ëpp ceeb la walla dugub mën naa génn ci dugub mën naa génn ci ceeb boroom xam-xam yi itam ci seenu góorgóorlu ne mën naa génn ci xalis ndax ko am xaalis am ceeb am dugub te mën naa am itam ki ngay yónnee dugub walla ceeb ca waxtu woowa am na ceeb waaye lum àndal la amut waaye am na dugub wala lum àndal la amut te diggante bi jaayee ko ngir faj ca soxla sa te mooy bokk ci feet gi ni ci ñi way woomal yi du jàppandi kon boroom xam-xam yi mën naa génn ci xalis su ko defee nag jullit bi day góor góorlu ci matal ab taxawaayam ci fas yéene lépp loo xamante ni dana koy def mu fas ci yéene def la ci gën li mu bëgg wax mooy joxe dafa sax ci bakkan ñu bañ ñu dugal ci ak nasax ndax am na ñoo xam ne boo nee ceeb bëgg na yomb la ñuy dàkk boo nee dugub it bu fekkente ni ba gën a yomb ngay dunde walla bal na pour nga génne ko waaye bu la wóoree ni ceeb bu seer ngay lekk ndax am nga njëgam la nga dul lekk wax dëgg yàlla waru ko joxe. ci xelum doomu rek ndax nangu gi moom ci suñu borom rek laaju kenn rek mooy nangu moo waaye danoo war a am taxawaay bu ma sëkk ci buñ koy jox jox ko la gën moo tax nu war cee góorgóorlu bu baax a baax nu ciy fàttali nag bokk yi ñu bokkal kuréel gi ndax taxawonte la jàppalante la bàyyente xel la bu baax a baax te xamante ne itam ci xeeti ndimbal yi génn ñim war a dem kon noo koy fàttali bu baax a baax noonu itam la ñuy continuer di fàttali mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xamante ne ni suñ boroom daf nu ko sant Sëriñ Tuubaa bindal nu téere yañ koy jànge digal nu ko nañ ci góorgóorlu nañ fas yéene doon ay jullit fas yéene doon ay taalibe nañ koy waxe di ko jëfe te mi ànd ak yéene ju sell ab jaam du wàcc yàlla des ab jaam du wàcc yàlla des ku def la la war suñ boroom dara du dese ci moom innal abraara la fi te loolu mënees na cee dégg rek ni booy baax yàlla la gën a baax waaye innal fujjaara la fi jahim mënees na cee dégg itam ni booy féeteerlu suñ boroom la ëpp kàttan te boo demee moom nga fay fekk noonu bàyyi xel jaamu yàlla yi te dëppale ko ak ni ko yonant bi sallallahu alayhi wa sallam doon defe dàkk ci jëwriñ ji nga xamante ni moom la yàlla booleel mu seeyal léppam ci diine amul genn bëgg walla benn yëngutu ba musa yëngu bu dul ni ci diine képp la ko def nu war koo sagal te sagoo ko sagal gi ak sagoo gi nag mooy fexe ba tege ci yoon woo xamante ni kenn du ko joxoñ baaraam di ko jaare ci ñun ndax bari na ku yëpp kilifaam te ci mbooloom nga jaare ba yëpp ko yëpp kilifa te ci mbooloom nga jaare ba ko waaye sëñ bi moom yëpp lu wut noonu nag noo wara a góorgóorlu sax ci ak njub ba kenn du am bunt boo xamante ni nii da ci mën a jaare ba àgg ci sëriñ moom kat wàcc na lii nag ab fàttali la rek boo xamante ni nii bëggoon naa koo fàttali ak bokk yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa